njiitu réew mii di président Macky Sall saa su nekk muy wane importance ak njëriñ li nga xam ne agriculture daan na koy am ci réewum Sénégal son excellence président Macky Sall jàpp ne relance économique bi dara jiitu ci agriculture tax mu daal si teg ab programme bu mucc ayib ci conseil des ministres bi nga xam ne daan nañu koy amal ci àllarba ji fukki fan ci weeru mars atum 2021 njiitu réew mi di président Macky Sall daat nay félicité rafet lu bu baax a baax fonctionnement bi nga xam ne am na solo lool ci campagne de commercialisation arachidière ndax nag lu toll ci juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak ñeenti junni yu toftal ñeenti téeméer ak juróom fukk ak benn ci ay tonnes yoo xam ne daat nañu koy dajale ci diirub juróom-ñeent fukki fan ak juróom-ñett maanaam li nga xamante ni dajale nañ ko ci gerte ci campagne yu ren bi toll na ci 564 451 tonnes ci diirub 98 jours. xaalis bi nga xamante ni moom lañ ci dugal toll na ci cent soixante dix milliards maanaam téeméer ak juróom-ñaar fukki junni yoo xamante ni daat nañu ko ci dugal ci monde rural bi njiitu réew mi di président Macky Sall ci conseil des ministre bi àllarba fukki fan ci weeru mars atum deux mille vingt et un rafetlu na li nga xamante ni moo jëm ci wàllu fonctionnement campagne commercialisation arachidière bi waaye tamit daat nay félicité ministre professeur Moussa Baldé mi nga xam ne moom lañ dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllum agriculture ak wàllum équipement rural ñi nga xam ne nag ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum mbay mi daat nañu rafetlu bu baax a baax jéego yi nga xam ne njiitu réew mi di président Macky Sall daat na ko si def rawatina ministre Moussa Baldé mi nga xam ne mooy ministre bi ñu dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllum agriculture ak wàllum équipement rural.